أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام sunu dars buñ fi mujjee def ñoo ngi woon ci istuwaaru Seydina Yusuf alayhi salaatu wassalaam ngi tolloon ak yéen ci aaya 69 fi sunu borom subhaanahu wa taala di wax wa lamma daxaluu ala yusufa aawaa ilayhi axaahu qaala inni ana axuuka fala tabta'is bima kaanuu yacmaluun ngi tolloon sunu borom subhaanahu wa taala dinu nettali ci xabaaru xew-xewu yuusuf kon mawduu dars tey bi mooy sawqun wa liqa mooy cofeel ak daje sunu borom nee na subhaanahu wa taala ba mbokki yuusuf yi duggee ci yuusuf xam ngeen ne bu ñu mujjee dajeek moom daf leen waxoon ne ana seen bàyyi ñu ne mu ngi dund laaj leen ay xabaar ñu tontu ba mu yegsee ak ñoom am nañu ay doomu bàyyi lañ sunu papa yoroon na nangami soxna nangami doom la am ñun ñi ñun ñoo bokk ndey ak baay am na fa ñaar ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay seen yaay dafa gaañu kenn ki moom daanaka dee na wala réer na xamuñu ci lu mu nekk rakk ma fa des bu tudd Benyamin fekk xamuñu ne ki ñuy waxal moom la bi loolu amee ñu wax ko xabaar boobu mu sàkku ci ñoom nag ne comme yéen a ngi dem deuxième fois pour bu ngeen fi ñëwee pour ma jaay leen wala ma regleel leen seeni jafe-jafe du mën a nekk lu dul ngeen indil ma seen rakk jooju des foofu loolu la nu sunu borom di nettali mu ne walamma daxalu ala yusuf ba nga xamante ne dogi jóge nañ dëkk ba ñëw misro dugg ci yusuf mu ne aawaa ilayhi axaa fexe na ci ay pexe yu mu fexe ba wéet ak rakkam ba mu wéeteeg moom lu mu ko def qaala mu ne ko inni a ana axuuka man mii ana wi tawkiid la inni man ana axuuk maay sa mbokk maay sa mag yusuf biñ naan dafa faatu wala dafa sànq wala dafa alku man mii la falaa tabtais bi ma kaanu yaamaluun bul am benn sikki sàkka benn déngi déngi benn naqar ci ñoom pexe yi ñuy def mu ne wasala ixwatu yusuf alayhi salaam wa maahum axuhum binyamin mu ne mbokk yusuf yi yegg si nañ ci yusuf ñu ànd ak seen rakk ba wutudd binyamin moom ñoom ñoo ngi bokk baay moo ak ñoom baay lañ bokk moom rahil mooy yaayam mook yusuf fa afaada alayhim yusuf alayhi salaam min al ikrami wal iltaafi wassila wal ihsaani maa jaalahum fi gaayati al kirama bi ñu yegsee yusuf daf leen a taral teral goo xam ne ëpp na mu lewet ci ñoom lewet goo xam ne ëpp na mu jokk leen jokk goo xam ne ëpp na mu rafetal ci ñoom rafetal goo xam ne ëpp na bu ñu bu ñu taxawee fii tuuti ñun ñëpp danoon xam ne dëgg-dëgg Yuusuf yonent la mas ngaa gis ku jaar ak sa famille fii mu jaar nekk xale bu ndaw dóor yiñ ko dóor taqali ko ak baayam sànni ko ci teen jaay ko loolu lépp ak Yuusuf nga xam ne toog na lu tolloog ay nangami at gisul baayam ba mu màgg ba dem Égypte ñu jaay ko ba dugal ko kaso ba tey mu génn nekk buur mu nekk président de la république mu ne tëll dajeeg ñooñu doon def ko lu bon lu muy xalaat bu doon kenn ci yéen fii lu muy def ñi la doon def loolu nga dajeeg ñoom ah mbokk yi sa xel ci lan lay dem ah da nga naan leen bu doon Sénégal nga rek nga leen préparé leen ma kaso boobu nekk kii dugg pour nga préparé nooy fayoo waaye gis ngeen yonent yi dafa bokk ci seen aada izhabu fa antumu tuloqa gis ngeen yonent yàlla muhammad li ko waa Màkka def yépp amul fu nu mu yemul ci mbon waaye keroog ba mu amee doole ba ñëw ci kaaba gi rajaxi xërëm yi nangu caabi kaaba gi bilaal yéeg nodd mu dajale noonam yépp ci suufu keb kaa kaaba gi sahaaba yor seeni jaasi ak seeni ngànnaay ñépp tiit mu ne leen maada tazunnuna anni failun bikumul yawm lan ngeen yaakaar ne laa leen di def ñu ne ko axun karim wabnu axin karim mu ne dem leen baal naa leen ndeysaan moo tax jullit du fayu lu bon fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah ku baale mu yëwénal fayam yàlla moo ko yor xoolal ñii li ñu def yépp ci lu bon tey mu recevoir leen ci biir palais bi waxuma sax mais ci biir palais lan la def mu teral leen lewet ci ñoom jokku leen rafetal ci ñoom ba garde yi sax dañu doon yaakaar ne mais ñii mais lii lan la lan moo tax ñépp ñëw fi kenn teralu leen kenn waxul ak ñoom kenn dugalu leen ci palais bi kenn fanaanul ak ñoom ñoom yemuñu ci dugg palais dañoo dem ba ci néegu bi ba ci biir biir biir biir ñu tegal leen lu nekk ak lu bon li ñu def lépp mu ne laqad ixtadana yusuf axaahu binyamin wa kashafa lahu waxdahu sirra qarabatihi nan la ko defee mu ne yusuf jokkoo na ak binyamin mu leeral ko secret yi nekk digganteem ak moom ñoom ñaar lan lanu bokk waaye yusuf naka la def ba wéet ak binyamin ba nettali ko xamal ko xabaar bi xamal ko ne man maa yusuf maa ngi yow nangam ak nangam lañ bokk mu ne wa min al muakkad annahu lam yafal dhalika fawran daxalu ixwatahu alayhi wa illa lan kashafa al amra mu ne ñun ñëpp lu ñu war a xam mooy Yuusuf bi mbokkam yi duggee ci ñoom dugguñu rek asalaamu aleykum rek mu tëb ne leen man maa Yuusuf kon su boobaa mbir mi day feeñ maanaam dafa teey daf ndànk loolu moo leen di wan ne nit dafa war a teey yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ndànku du nekk ci dara lu dul mu rafet ndànku def ndànk du nekk ci liggéey du nekk ci mbir lu dul day rafet waaye yàkkamti du nekk ci dara lu dul mu yàqu xool ko ci lépp nag gis nga kii dafa teey dal bi waa kër gi duggee mbokk yi dugg qaala al mufassiruun lamma daxala ixwatu yusuf alayhi akramahum wa axsana diyaafatahum summa anzala kullu snayni fi baytin wa baqiya binyamin waxiidan mu ne ñoom boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñuy dimbali ba ñu mën a dégg alquran yi ñu koy firil ñu ne yusuf alayhi salaam bi mbokkam yi ñëwee ci ñoom li mu njëkk a def mooy teral leen akramahum leen teral wa ahsana diyaafatahum mu rafetal nganale gi nganale gi ñu ko gane si mu rafetal ko su manzala kullu snayni min baytin mu wàcce ñaar ñu nekk ci néeg ñaar ñu nekk bokku néeg ñaar ñu nekk bokku néeg mu ne wa baqiya binyamin binyamin daal di des lan moo tax binyamin des lu tax Binyaamin des ñoom fukk lañ ak ñaar waaye kenn ka nee nañ dee na mooy mu des kenn muy Binyaamin léegi bu jëlee deux deux ñu bokk ndey ak baay ñu bokk nekk deux deux deux deux dix yi day mot fa mu des kenn kooku nekk Binyaamin amul ku mu bokkal mu ne ko yow maag yow ñoo bokk mu daal di koy jël dugal ko ci néeg ñoom ñaar ñu bokk fa qaala hada la thani lahu mu ne leen kii amul deuxième personne fa yakunu isan ma yi kon day nekk ak man bala muy wéet ndax kon day fàttaliku ay yaayam day fàttaliku day day xalaat magam bi dem kon bàyyi leen ko mu nekk ak man allahu akbar fa baata yusuf nag yadummuhu ilayhi wa yuaatiquhu wa yuaaniquhu fa qaala lahu ana axuka yusuf fala tahzan bima sana'u summa aclamahu annahu sayaxtaalu li ibqaa'ihi cindahu wa amarahu an yaktuma alxabara bi ñu wéetee ñoom ñaar nekk ñaar nga xam ne léegi ku nekk yaag yaa ngi sa néeg moom dong ak rakkam lim ko njëkk a def mu tàpp ko ci dënnam ndeysaan xëcc ko ci dënn bi yemu ci mu doqoog moom ndeysaan mu jooy mu yëkkat ba jabar ji sax dafa tiit jabaru yusuf soxnaam fa qaala lahu ana axuk mu ne ko man maay sa frère maay sa mbokk yusuf man la deewuma de li gaa yi def yépp bëggoon ma dee yàlla dogalul ci man dee waaw ndax ñoom li ñu waxoon mooy rey leen ko ndax ngeen mën a wéet ak seen baay waaye yàlla subhanahu wa taala nammul xale bi dee mu ne ko fala tahzan bi ma sanaaw bul am naqar ci ñoom lii ñuy def waaye xamal na ko ne dinaa def pexe yow ba doo ñibbi mais pexe boobu bul ko wax kenn noppil pexe la rek boo xam ne dama koy tëral pour yow dootoo ñibbi fii ngay toog mu ne fatanatun wa zaka pexe muus ak xelu bi nga xamante ne ngana na leen ba ngana la gi jeex mu jox leen ñu lekk jox leen ñu naan defar leen lépp nattal leen li leen fi indi woon mu nekk mu defar ko ku nekk mu nattal la sa saag ba mu fees del yusuf pexe yi mu tëral pour rakkam des fi mooy lii yàlla di ñu nettali ci alquran ci aaya 70 borom bi nee na falamma jahazahum bi jahazihim jaala siqaayata fi rahli axii falamma jahazahum ba mu leen waajalee mu préparé leen mu préparé seen bagage yëpp bi jahaazihim yëpp li ñu waroon am jaala siqaayata def na nattukaay bi ñuy nattali nit ñi fii raxli axiihi ci bagaasu rakkam mu ne ñii natt su ngeen nattee ba jeex balaa ngeen a ñëw saaku yi jël leen nattukaay bi ngeen def ko ci saaku Binyaamin ngeen ñëw lamma qada yusuf alayhi salatu wasalam xaajatahum wa xammala iblihim bi taami alladi yakfihim amara ahadahum mu ne bi leen yusuf préparé defaral leen seen lépp ba nga xam ne gëléem yi yenu nañ seeni bagage ñam bi nga xam ne moom la ñu ut si woon sant na kenn ci liggéeykatam yi ay yajaala siqaayata mu jël li ñuy nattee te mooy kaas bi kaas bi kaasu xaalis la mu ne ko def ko ci sama saaku saaku binyamin wa kaana al kaas tustaxdamu ka mikyaalin lil xila mu ne bagage bi kaas boobu kopp boobu dañ ko doon utiliser pour nattal nit ñi bu ñuy jaay dund bi wa kaana al xaaliya wa thamina nattukaay bi nag dafa seer xaaliya wa samina dafa seer yemul ci seer waaye dafa rafet laqad amara bi ixfail kaas fi mataai axiihi binyamin mu ne digal na leen ñu nëbb kopp bi nattukaay bi ci mbuusu binyamin fa bada ixwatu yusuf alayhi salaam yastaidduuna lirrahil mu ne mbokka mi nag léegi préparé nañ di waaj a ñibbi wa maahum axuhum binyamin seen frère ànd ak ñoom bu leen fàtte ne ba ñuy jóge dëkk ba am na lu ñu waxoon ak seen papa am na lu ñu jaayante woon ak moom ba kenn ku mag ki ne ko man de giñ naa ci yàlla ne xale bi bu fa naree des man dootuma gisati ginnaaw lii lépp préparé nañ jël seen rak départ jël seeni bagage daal di jiital seeni gëléem gëléem yi jiitu ñu nekk ci ginnaaw wa fajaatan ci mbetteel rek uxliqat abwaab al madina ñu fermer frontière u dëkk bi Égypte ñu fermer frontière bi yépp summa azzanal muazzinun ayyuhal iiru innakum la saariquun ñu jékki-jékki rek gis ay fas ak ay soldats armée bi daw wër leen daal di leen def benn buukul benn ndombo wër leen ñoom ñu nekk ci digg bi bi loolu amee lan moo xew kenn ci soldaar yi ne leen eh yéen caravane boobu di dem innakum la saariqun yéen ay sàcc ngeen yaa saahiba ibil yéen yee ñu yor gëléem yi wa yaa ayyuhal qawm e yéen nit ñooñu al musaafiruna ñuy tukki innakum la saariqun yéen ay sàcc ngeen ah ah ah ah wa kaana hada nida yaani tuqifu kull al qawafil nee na baat bi woote bi bi waa ji yuuxoo bépp caravane bu jaaroon yoon boobu dafa mujj taxaw fa aqbala annaas fa aqbala maahum ixwatu yusuf nit ñëpp daal di ñëw dajaloo benn place mbokk yusuf yi tamit daal di ñëw ndax comme délégation bu mag la woon ñuy ñibbi ñoom ñëpp ñu yuuxu leen ne leen yéen nit ñoo ñëpp ay sàcc ngeen ñëpp taxaw soldaar yi ñëw qaalu wa aqbalu alayhim maza tafqidun nit ñi ne leen waaw lan ngeen nemmeeku ba ne ñun ay sàcc lan lan ngeen gisul lan moo leen réer qaala al mufassirun ñii ñuy dimbali pour ñu firi alquran dégg ko ñu ne lama wasalal munaadun ilayhim qaalu alam nukrimukum boroom xam-xam yi nee nañ minteer yi ba ñu yegsee ci mbokk yuusuf yi liñ leen njëkk a wax mooy yéen ndax teraluñ leen ndax defaluñ leen teraanga ci pale ba ñu ne ahakay ñu ne leen wa nux wa nux sinu diyaafatakum ndax rafetaluñu seen nganale gi nganaluñu leen nganale bu rafet ñu ne ahakay ñu ne wa nu waffi ilaykumul kayla liñ leen nattal est-ce que mataluñ ko ñu ne ahakay wa nafalu bikum ma lam nafal bi gayrikum est-ce que yéen ñii defaluñ leen luñ defalul seen morom ñu ne aha kay qaalu bala wallahi li ngeen wax yëpp defal ngeen ñu ko waaw ma zaaka léegi nag lu xew qaalu faqad naa siqayat al malik ñu ne ñun biñ leen jaayee ba pare yéen nañ mujjee jaay mais bi ngeen demee rek gisatuñu nattukaay bi mooy suñu problème ak yéen waxuñu ne yéen ay sàcc ngeen waaye dañoo gisul bagage bi waaw waaw wa kazalika qawluhu taala qaalu wa aqbalu alayhim maaza tafqidun lan ngeen gisul ay iltafitu ilayhim wa saaluhum maada daa minkum wa maada fuqida min teereeg armée bi biñ ñëwee liñ leen wax biñ jubloo mbokk yusuf yi mooy ñun kat gisuñu nattukaay bi ñoom ñu laaj leen lan ngeen gisul lan mooy seen problème ak yéen lan moo leen réer ba ngeen ñëw di ñu dab si ñu ne gisuñu nattukaay bi qaala al junuud nafqidu suaa al maliki nattukaayu buur bi la ñu gisul daa al kaas al zahabi waaw nattukaay bi nga xam ne nattukaayu xaalis la gisuñu ko waaye léegi nag wali man yaji'u biha mukaafa képp koo xam ne indi nga ko génne nga ko léegi nii balaa ñuy seet danañ la teral danañ la neexal sa nutihi hamla ba'irin min xilaal danañ la jox beneen gëléem bu fees del ak dund loolu mooy teraanga bi nga xam ne ku génnee affaire bi bala ñuy visiter kenn danañ la teral danañ la neexal liñ lay neexal di la ko terale du lenn dul danañ la jox benn gëléem bu fees dell ak dund ah mbokk Yusuf yi daal di tontu ci alquran ci aaya 73 qaalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fi l ard ñoo ngi giñ ci yàlla tallahi la ñu wax dañoo giñ yéen ñii laqad alimtum leer na ci yéen xam ngeen ne ñun maa ji'na li nufsida fi l ard ñëwuñu pour yàq suuf loolu moo leen wan ne sàcc yàqkat la sàcc yàqkat la xoolal sàcc li muy wala muy sàcc day dajj wala mu toj wala mu tas yaakaaru nit imaginel tabaski misaal nga jënd xar denc benn waay yéeg miir ñëw jël xar bi rendi ko ci kër gi daal di koy fees bàyyil la der bi ak yeel yi ak béjjén yi dem yoonam gis naa ay sàcc yoo xam dañoo dugg ci kër rendi xar yi mag yépp ñu xam ne bu ñu fa bàyyee mbotay mbotay day jooy ñu rendi mbotay bàyyil ko fa waa ji dem seen yoon xool loolu nu mu grawee waa kër gi dañoo yeewu rek gis deret ji ñu yóbbu xar yi yëpp waaw gis ngeen xam ne sàcc baaxul sàcc day yàq moo tax ñoom luñ tont alquran moo ñu ko wax lan lañ wax qaalu ñu ne yéen ñii xam ngeen ne ñun ñëwuñu pour yàq suuf si wallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fi l ard qasamun fiihi maana taajub nee na waat bi waa gaa yi waat soo ko dégloo da nga ciy dégg kéemtaan waaru mu taajibiin ñoom dañoo waaru lan lañ waaru mooy dañ leen tuumal sàcc te ñoom du ñu ay sàcc ñu ne wallahi laqad alimtum ayyuha alqawmu maa ji'na bi qasdi an nufsida ardakum xam ngeen ne yéen ñii ñun jógewuñu seen dëkk pour ñëw seen dëkk pour yàqu ko wa ma kunna sariqina ñun musuñoo nekk ay sàcc wa lasna mimman yuusafu bi soroqa ñun ku ñu xool xool suñuy jëmm xam ne ñun duñu ay sàcc kenn waruñu xool sax naan ñu ay sàcc ngeen li annana awlaadu ambiya ndax ñun ay doomu yonent lañ yonent yi ñooy suñuy baay yaaqub isxaqa mooy sunu papa mooy sunu maam isxaqa ibrahima mooy maamam ibrahima moo jur isxaq isxaqa jur yaaqub yaaqub moo ñu jur kon ñun nag naka la ñuy nekkee ay sàcc allahu akbar wala nafaalu misla hadha al fi'l al qabih jëf ju bon ji ñun duñ ko def mukk qalu ba ñu ba ñu waxee loolu ñoom mbokk yusuf yi lii lépp boobu ay wax kese la joxante kàddu bu ñu waxee ñooñu tontu ñeneen tamit da ngi tontu mooy armée bi qalu fama jazaa'uhu in kuntum kaadibin lan mooy fayu suñu jàppee sàcc bi ci seen biir bu ngeen fenee li ngeen wax nii bu ñu contrôler ñu visiter saag yi bagage yi ñu fekk mbir mi ci yéen lan mooy fayu loolu ki ko def maa uqubatu sariq fi sariatikum lan mooy seen loi yéen seen dëkk kanaan bi ngeen jóge ñëw fii su ngeen jàppee sàcc lan mooy lan mooy lan ngeen koy àtte bu fekkee Égypte la bu ñu jàppee sàcc day fay xaas bëri ñu ko libéré ko bu fekkee Kanaan la bu ñu jàppee sàcc sàcc bi day nekk sa jaam di la liggéeyal kon lu waay bokkul ñoom nag lan moo tax jàpp ñëwuñu rek ñu ne kii sàcc la tey bu ñu jàppee benn waay ci Sénégal ban fekk dëkkul Sénégal ban luwaa lan ko waraate ah loi Sénégal wala loi fi mu dëkk yaay jàmme bi mu jàppee sénégalais yi Gambie lu mu leen atte loi Gambie daf leen rey kon dëkk bu nekk loi ba fa nekk la ñuy atte mais lan moo tax yuusuf jàpp ñii ba pare te bugg leen nangu àtte lu waa dëkk parce que dafa bëgg xale bi des fi parce que foofu ku sàcc bu ñu la jàppee ki nga sàcc yëfam moom ngay nekk jaamam comme loolu la moo tax mu def plan boobu mu def indi plan sàcc léegi nag bi mu leen laajee lan mooy seen sharia yéen lan ngeen di àtte bu ngeen jàppee sàcc qaalu jazaauhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaauhu képp koo xam ne dañu dañ la jàpp nga sàcc yow yow yaay fay sàcc boobu jazaau saariq allazi yujadu assaau fi mataihi an yustaraqa wa yusbax mamlukan liman saraqa minhu képp koo xam ne dangaa dañ laa jàpp nga nekk sàcc ki nga sàcc moo la moom qaala alxaaris sawfa nutabiqu alaykum qanunakum garde bi ki nga xam ne moom moo leen ko ji woon wax leen léegi xam nga nu ñuy def ñu ne ah mu ne seen loi lan leen di atte ñun duñ leen di atte sunu loi seen loi yéen alxaas seen loi bi ngeen gëm seen bàyyi di leen ci atte moom lan leen di atte ndeysaan faqad xakama man saraqa fi zilli alqanun almisri an yudraba wa yudfa daf saman ma saraqahu amma fi shariati yaqub faman saraqa fa innahu yas yusbih abdan raqiqan inda man saraqahu mu ne bu fekkee ci lu waa Égypte la boo sàccee dañuy doubler li nga sàcc fulandi ko ba mu bëree bëri nga fay bu fekkee ci lu waa Yaqub la shariam bi muy attee foofu suñ jàppee sàcc sàcc bi day nekk jaamu ki mu sàcc summa amara yusuf alayhi salaam junudahu bi taftis ixwati yusuf daal di joxe ndigal comme mu ngi woon ci biir mbir mi mu joxe ndigal mu ne leen fuyee leen affaire bi aca xool leen waaye fan lañ njëkkee buñ attaqué bosu xale bi rek kon mbir mi day day leer ñu njëkke mag ñi ku mag ci yéen ñu ne diw mu ne xool leen ko ñu xool gisuñu ñu xool xool xool xool ba fukki personnes yépp jeex gisuñu ci seen saak dara yusuf ne leen aca bàyyi leen ko rek ñoom ñu ne déedéet lu tax ñu koy bàyyi da ngeen ñëw jiñ sàcc day leer kii suñ rakk la ci xool leen bosam di ngeen xam ne ñun dun ay sàcc fekk yusuf bu ñu xoolee fukk yi gis ñu ko rek mu ne leen garaawul kon du ñii rek ñoom ñu riposte taxaw ne mukk fang ñu xool kii ndax yéen li ngeen bëgg rek ngay bëgg a yàq suñ der li ngeen xam ne ñun dun ay sàcc ñun ay doomu yonent la mu ne ah bàyyi leen ko rek ñu ne non non non dañ koy xool ñu ne ubbi leen ñu ubbi rek gis mbir bi rek ñu am problème problème bu gën a rëy keroog am nañ ko biñ ko gisee ndeysaan ñu commencé di xas xale bi di ko wax wax ju bon yow nii nga mën a mel parce que sa mag sàcc la woon mosoon naa sàcc Yusuf di dégg affaire bi yéen waa kër sàcc ngeen sama sàccoon na démb yow tey nga ñëw sàcc allahu akbar ñu xas leen xas xas yu métti métti métti métti métti métti métti ñu yàq deru xale bi fekk loolu ñu naan Yuusuf dafa sàccoon boroom xam-xam yi wax nañ ci ñaari mbir ñenn ñi nee nañ benn tàntaam wala benn bàjjanam moo daan jaamu xërëm benn yàlla bu mu amoon bu xëyee di jaamu yàlla bi yusuf bàyyi ba mu dem yusuf jël yàlla ji nëbb ko mu ñëw ne yusuf moo sàcc yàllaam beneen bi isxaqa bu muy faatu dafa bàyyi woon ci benn doomam bu jigéen bu tudd bu tudd benn bàjjanu yusuf mu bàyyi ci moom benn mbubu ak benn ak benn benn ceinture mbub mi bi ishaqa deewee ñu dem jëli yaqub dëkk bu tudd faddaan araan pour mu mën a ñëw kanaan jiite waa dëkk boobu bi mu ñëwee ñu jox ko mbub moomu mbub moomu moom moom la ibrahima soloon bi ñu ko sànnee ci safara si moom la ko jibril joxoon mbub mi ishaqa moo ko doon noonu bi ishaqa di waaj a dee mu jox ko doomam bu jigéen boobu bi yaqub ñëwee ñu jox ko mbub mi mu denc ceinture bi comme bàjjan ji amul woon doom mu seetlu ne yaqub këram dafa bëri ay xale jabaru yaqub bu xëyee di toppatoo xale yi moom li muy def mooy day toppatoo ñaari xale yu ndaw yi yuusuf ak binyamin mu bàyyi doomam yi lu tax mooy moom soxna soosu mag soosu nu mu tudd layya mook yaayu yusuf ñoo bokk ndey ak baay ay maag rakk lañ comme rakkam bu jigéen bi muy am doom daf ko ko di faatu daf ko confié confié woon ñaari xale yi toppatool ma sama ñaari doom yi moo tax ndeysaan ci lekk bu lekk bi jotee bu ñu xëyee suba wala ñuy añ wala ñuy reer doomu sërëm bi lay njëkk a toppatoo léegi nag doomam yi commencé mer bàjjan yi bi mu ñëwee mu gis loolu mu daal di ñëw ci yaqub mu ne ko léegi dama bëgg kii li mu occupé dafa bëri comme xale bii moom moo ci xaw a mag jox ma ma yore ko mooy yuusuf bi yuusuf demee ci moom mu jox ko ceinture boobu mu ne ko bii ceinture bi yonent yi yoo koy takk takk ko mais benn bis xale bi réer di ànd ak xale yi di fo rek di dóor dàqe xale bi am fu mu nëbbatu kenn gisatu ko nekk ci benn pour la dugg fu ñuy lakke mburu ñu wër wër wër wër ba sonn gisuñu ko mu dem seen kër di ko seeti ndax du dafa ñibbi bi mu demee waa kër gi ne ko Yuusuf ñëw fi ñoom ñoom ñu ànd di ko wër ñu ñëw ci kër gi ñu fekk dafa doon dóor dàqe rek di nëbbatu ndekke dugg na ci fuuru mburu mi mu nelaw ñu ubbi kii bi rek kubéer gi rek gis ko ci biir ñu génn ko papa ji ne ko nag comme dama laa jox sama doom te nekkul ci sécurité yaa ngi nii tey jii bu ñu taaloon pour bi day dee baal ma delloo ko kër ga mu bañ xale jigéen ji bañ ba ci yàgg bàyyi ji ne ko foog ma yóbbu ko mu ne waa léegi bàyyil ba ngoon ma waajal ko bi bàyyi ji demee mu waajal xale bi solal ko ay yére daf ko solal yére bu ndaw tekk ci ceinture bi solal ko beneen yére bu mag daal di koy solal benn manto mu bàyyi xale bi mu yóbbu xale ba këram mu ne yaqub sa doom a ngi nii mu dem yoonam mu toog ba mu yàgg mu ñëw mu ne yaqub sa doom yusuf dafa sàcc am na lu mu sàcc sama kër waxoon naa leen sànq ñoom seen charia lan la ku sàcc dañ dañ dañ da ngay dem nekk jaamu ki nga sàcc ñu ne ko lan la sàcc mu ne en tout cas am na lu ma xool sama kër sama seenturu maam bi ma sama baay joxoon mi moom mi moo ko jël ndax gisoon na fi moo ko denc ñu xool kër gi ñu woo Yuusuf laaj ko mu ne gisuma ko Yaqub mer daan ne ko yow ma ne yow ñu bokk ndeeg baay ngay tuumaal sama doom sàcc mu ne ko xaw ma ca da moom dafa def pexe pour récupérer xale bi yóbbu ko këram Yaqub tamit xam na ne pexe la def rek ñu laaj Yuusuf mu ne gisuma ko ñoom ñaar ñoo teg seen dil parce que moom tamit bàjjan ji gàtte na ko gàtte boo xam ne bëggul bàyyi bàjjan ji ñu simmi yére yi ñu commencé di xool ñu fekk mu takk ko ci ndigg li léegi nag bàjjan ji ne ko ah Yaqub lan mooy sariya Ibrahima bu ñu jàppee sàcc mu ne ko lii rek nga defoon pexe pour jël sama doom loolu kese pexe la woon mu ne ko rek mu ne mu ne soo bàyyiwul ma woo waa dëkk bi ñu xam ne sa doom sàcc la mu ne waaye yóbbu ko mu daal di jël Yusuf ndeysaan delloo ko këram mbokk yi kon fii la ñuy yem incha allah ba darsi bii di ñëwaat mercredi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu